donc may ñaan buñ ci àggee ngeen jàppaliñ ci loolu mairie bi dama ko soxla dama koy wax fii. ndax ndax ndax ndax Serigne Saliou Mbacke dafa doon wax ne nit sëriñ Saliou Mbacke dafa doon wax ne nit lu mu ñaanul yàlla. Serigne Saliou Mbacke dafa doon wax ni nit lu mu amul da koo ñaanul yàlla wutu ko man nag ñaan naa ko yàlla wut maa ngi koy wut ci yéen ndax mënu ma koo jox sama bopp te yéen laaj ci yaakaar te bu ñu ko yàlla joxee aussi du doon loo xamante ni dañ koy foyee du doon loo xam ne dañ ciy wut dara pour suñu bopp mais pour liggéeyal communauté bi la am nañ expérience bi am nañ vécu bi am nañ xam-xam bi am nañ ouverture bi am nañu relation yi aussi pour mën a jëriñ doomu aadama yi mais maire yi mel nii man gisuma lu fi nit mën a jëlee boppam donc maa ngi leen koy ñaan buñ ci àggee ngeen jàpp nañu si loolu ñu mën leen liggéeyal parce que loolu mooy sunu ndam mooy sunu sakk def fi loo xamante ni fii ak 50 ans fii ak 100 ans ku romb gis ne lii la Diop ak ña mu àndoon ñoo ko def loolu rek doy na way loolu mooy ndam ñun lépp lu ñuy dugg ndam lañu ciy wut léegi nag da ngeen ma baal tuuti parce que sport la ah, mais damay si dama ci profiter aussi pour communiquer politiquement parce que tribune la boo xam ne daf daf fi donc il faut que ma leeral yenn yi parce que yu bëri ñu fi yëngatu donc ku nekk ñi xëccu ci parti bi moi je trouve que c'est normal ci démocratie lañ nekk ci république lañ nekk boo xam ne ku nekk am nga droit bëgg dara li may wax samay ñoñ ak ñaan ak ñun ñëpp mooy bu ci kenn wax kenn sa morom lu ñaaw bu kenn xuloo bu kenn xeex ndax nit mënoo bokk ak moom ndey ak bàyyi nga fexe bañ tam ko yow nga set ñun ñëpp ñoo ànd te bu subaa incha allah dañuy ànd dafa am moment boo xam ne moment wu wax say ambition la ak moment boo xam ne moment ànd la te nañu fexe ba bés bu ñuy ànd loolu rafet mën a yomb parce que bu ñu ko yàq donc bu kenn xuloo bu kenn saaga bu kenn wax dara ndax nag li ndax nag li jar a xam li jar a xam ba xam ko ku wéet dëgg dëgg dëgg boo wéetee sa bopp xam nga dëgg-dëgg kan mooy kan donc loolu loolu laa am lu may wax ci loolu bu kenn xuloo kenn ne ñëpp juboo bu leen di wax leneen sax foo leen ak moom waxtaan leen ak moom naxante leen ak moom mbalak leen te leen ndax bu ëllëgee lépp dafay leer ñun ñëpp dañu war a àndaat loolu daan laa amoon lu may wax président di leen remercier encore une fois di wax ni kontaan nañu nous sommes à disposition ndax loolu mooy suñu wareef ni ñun nous disposition parce que loolu mooy suñu wareef lépp loo xamante ni mën nañu ko dinañu ko def pour la jeunesse pour le mouvement sportif lépp loo xamante ni yaakaar ngeen ni mën nañu ko aussi boo leen ñu ko waxee dinañ ci taxaw parce que ñun amuñu lu dul Guédiawaye amuñu lu dul Golf Sud maa ngi leen di gërëm di leen sant encore une fois di leen wax ni kontaan di remercier aussi presse bi nga xamante ni ñëw nañ ak doole maa ngi leen di gërëm di leen euh, remercier ci seen tax vraiment di lañ wax ni kontaan nañu jërëjëf.